man du ma foo xale voilà bu dee da nga bëgg koo fooy dama nga fooy ñeneen man duma ma foo ak parce que yow doo sama morom te say wax du yam boobu bi ko sama yaay waxee loolu rek mënoon naa xëy naa ko jël téléphone am woo ko ne ko farlaw bi baal ma àkk dama doon foo rek dama doon kaf rek mais comme li ma wax nii neexu la maa ngi jéggalu mais am ay nit yu jigéen ay jéeg ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara ay baadoo la ay jigéen ñoo xam ne nii ñoom farlaw bi da leen di déranger dañ ñun ma yàgg ànd ak sama yaay ba tàyyi dugg ak moom ci boîte ñuy jouer wala ñuy bëf dugg ci biir boîte bi fekk jigéen ñoo ñu wàcce seeni sàngara di teg seeni yàmbaa di tux ak seeni cigarette ma ci teg sama bët man xaw ma sàngara nu mu mel ne mais su ma génnee dama naan yaay kii lu muy naan sama yaay dama kii sàngara lay naan ñuy ay jigéen ñu siiw ñu ngi may déglu am na loo xam ne sama yaay mënu cee détaillé mais man mi maa ci détaillé man du ma foo wax xale voilà bu dee da nga bëgg koo fooy dama nga fooy ñeneen man du ma foog yow parce que yow doo sama morom te say wax du yam boobu bi ko sama yaay waxee loolu rek mënoon naa xëy naa ko jël téléphone am woo ko ne ko Fatou Laobé baal ma àkk dama doon foo rek dama doon kaf rek mais comme li ma wax nii neexu la maa ngi jéggalu mais am ay nit yu jigéen ay jéeg ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara ay baadoo la ay jigéen ñoo xam ne nii ñoom Fatou Laobé da leen di déranger. te ñun ma yàgg ànd ak sama yaay ba tàyyi dugg ak moom ci boîte ñuy jouer wala ñuy bëf dugg ci biir boîte bi fekk jigéen ñoo ñu wàcce seen i sàngara di teg seeni i di tux ak seeni i ma ci teg sama bët man xaw ma sàngara nu mu mel ne mais su ma génnee dama naan yaay kii lu muy naan sama yaay dama kii sàngara lay naan ñuy ay jigéen ñu siiw ñu ngi may déglu am na loo xam ne sama yaay mënu cee détaillé mais man mii maa ci détaillé.